laaj na leen ndax pare nañu arbitre ngi wax ay sixième laaj na leen laaj na Saal Bambey ndeysaan laaj na Saal Bambey laaj na Bawol Boy Bawol nee ko pare na sifle na Cheikh Omar Saal Bambey suñu ndeyjoor Boy Bawol de suñu càmmoñ ndeysaan Saal Bambey mu fi daan Garga 2 bu waaye booy booy booy bawal 2 moo fi mujj daan bañu kay. waaw loolu de am na moom mooy. sant doom ci booy kay rek. ak booy oh Bambey Saal ngi déplacé wu. tey dama lay wax la l' expérience face la jeunesse. waaw boo moytuwul daal combat bi gaaw lay doon. waaw a ngi bëgg a yàgg ci la. maa bi waaw waaw. ndeysaan ndeysaan mooy dajeeg booy bawal. Zal Bambey mujj fee daan Garga tee bu yëmbal jël bu rëy Garga déedéet. booy bawal il faut faire doucement. bëre ba sa doole jeex. Zal Bambey nax la daan la moom lay bañ. oh la la bu ko defaat bu ko daanu yaay daanu. yaay daanu lan laa la waxoon laa ilaha illallah saal ba mbay day ah du yomb daal du yomb lu booy ba walla du yomb moom laa ilaha illallah waaw waaw ah ah ah saal ba mbay daanu na wala muy njaax booy daanu na booy ba supporter yi xoolal supporter yi xoolal supporters yi